ci Benno Bokk Yaakaar si département de Mbacké jeunesse bi ñoo jël relève bi ngir doon amal programme bi ñu dëppee wax ak sa askan après un mois et demi sur le terrain doon amal ay VAD visite à domicile c'est à l'heure du bilan nit ki mënuloo ko jiite te jege woo ko moo tax li njëkk ci ñun mooy ñu ne nañ dem jege ji nit ñi biñ demee jege leen Euh, njariñ li mooy dinañu xam lan lañu soxla ñoom ñun bu ñu gañe woon conseil départemental ñu man leen ko defal ñu ciblé woon fi nga xam ne mooy quartier périphérique ji dem nañ fa ak suñu tànk du matin au soir du jour au lendemain noppaluñ benn yoon pendant un mois mën naa ne tey la population de Touba bu doon cent pour cent taxaw nañ ci soixante pour cent yoo xam ne xam nañ seen i jafe-jafe xam nañ fi nga xam ne fi leen conseil bi tolloon ak lim naka noonu jàpp nañu sax nag échec total dafa am ci président sortant bi biir centre ville bi tey Daaru Xudus lañ jógee am na ñu dëkk biir Daaru Xudus boo ne leen conseil départemental bi kan moo ko yoroon mënuñu laa waxal kenn moo ko yor kon nag jàpp naa ni échec la sëñ Fallou Mbacke suñu sëriñu ñun ñëpp lu nekk waroon xew ba mu des moom mu taxaw di laajaat conseil départemental bi ndax sëñ Fallou buñ buñ fàtte ne moo yoroon conseil régional mu jiitu conseil départemental yor ko juróomi at bi mu jeexee yor conseil départemental pendant sept ans yor bés boo xam ne euh, mi ngi varié ci six cent millions liggéey ci ba nga xam ne jeexal na te amul kenn koo xam ne ci dëkk bi mën ngaa dox ba ne ko ndax mos ngaa xam li conseil départemental def benn investissement. gis nañu ni relève bi du kenn ku dul seen i candidat di Matar job tey jii nag la ndaw yi gën a am confiance ginnaaw bi ñu defee un mois de terrain et jàpp nañu ni fi ñuy teg seen tànk xam nañ ko xam nañu doléance yi te na dinañ si apporter des solutions te nag kookee du kenn ku dul seen candidat Matar Diop. kon jàpp naa ne li ma man a tirer comme bilan mooy tey bu ñu euh, maanaam bu doon wax waxu euh, confiance man jàpp naa ne tey am nañ confiance boo xam ne gëm naa ne élection yii ñu jëm population bi ma gis ci Touba ci kattanu suñu borom dinañu jox seeni waaw. ci le 23 ñëpp danañ xam ne nit ñi honorable Matar Diop moom lañu àndal ndax ñi nga xamante ne ni bon dañ fee dañ dañ fee nekkoon defuñu fi dara ñi nga xamante ne ay député la woon bañ leen falee lañ leen mujjoon a wi loolu lañ leen di te honorable Matar moom booba ak léegi ma ngi continuer di fi def ay activité ci mbënn mi léegi sama gars yi wax nañ ko muy day jàppale askan wi ci social rek la dëkk beneen étape yi mooy nag delluwaat si zone yi liggéey ngir gën a renforcer seen ay acquis buñ sukkandikoo seen i kàddu waane Bassirou Mboup kenn si ñoom jàpp na ni kat li ñu mooy sécuriser les élections bu ñëwee ba ci wàllu nag la war a def en tant ndaw sécuriser suñuy watan sécuriser suñuy élection danañ ko def te ñi nga xam ne ñoo daan jaar ci ginnaaw di yàq nag tey bu ñu xam ne cette fois ci du doon bu baax li ñuy def danañ